382 67 68 ngeen laajte Ibrahima Diop mbokk yi mën ngeen a woote ci 76 507 78 47 ngeen laajte Samba Diop kër gi xéewal waa kër Xaadimu Rasul nekk fii ci Médina rue 25 angle 24 ca dëgg-dëgg daal ñoo fi ne. الحمد لله الذي أغناني وأعزني الحمد لله الذي أغناني وأعزني budzę gitoki, koksa susia resto Głosi bidę, psi sosu, żaresto Nuli budzę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

మరియతే పంచమ దాకా జరాంగ పంచలాయి నాలుగు దాకా మొయ్ మరిని తెక్క గలంగి న్యూడుకు బాకు మొమ్మంచి కవి కేవల మీ బుకు న్యాక ఏ బుకు న్యాక కేవల మీ బుకు న్యాక మొమ్మంచి బేపు ఖేతు తెరాంగ من بنش ماما ضيجي تراغن بنش في من Bye bye, Mr. Wow, wow. You must have wrecked. ko naan na ko xam. ak mooy si rek ci naan rek fii la fekk baax. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك العلي العظيم الحمد لله ginnaaw bi ñu sante yàlla julli sango-sang yi saydina muhammadin sallallahu leen di ziar baax ñaanal saxaaba mi baax yooyu la laa ay ba fiim xayra an na jumoo ahum amuñ benn sikk lu dina ba yàlla séddale gën ji cër ma fu ñu yàlla foroxe ko yàlla noonu la ko waaji ngi jaar tabaarakallaa ñuy topp Ali Imran ñëpp ak ñu ngi leen di baalu baax di leen baalu xaq di sama waaji Mouhamadou Lamine Cissé Baye Dias ñoom tabaaraka la ak mboolem téléspectateurs yi nga xam ñu ngi koy nuyu Aji Malick borom lan mee nga ñu ngi koy jaar baax macha allah di ko béggee lu bare bare bare tabaarakallaahu ñëwaat nañ ci émission bi tudd Anbiya ngeen di ci ak seen mbokk daara Alif Kandji muy am fii ci Ali Imran TV chaque alxamis ña nga doon ci jeexintalu xisa bu rëy boobu le boobu Abraha mu màgg moom mu la diggante ba Abdul Mutalib seen dialogue ba ñoom ñaar waxoon naa la nañ dialogue woon ak la ca a Abdul Muttalib ki koy interpréter ne ko loo wax mu ne ko li ma wax daal mooy jox ma sama alal ma ñibbeeg moom Abdul Muttalib nag loolu mu wax dafa rusloo Abraha parce que Abraha dafa yaakaar daf ne ko dooy wax moom ci wàllu kaaba gi ndax kaaba gi rek mooy intention bi ko animé ba tax mu ñëw ci dëkk ba yàlla dogal Abraha kooku ne ko ah man nag lii ñoruma de man daal lii ma ñor mooy alal ji nga ma jëlal jox ma ko rek ma dem ndeysaan yàlla dogal nag ba loolu amee mu ne ko yaa ñàkk fayda lan moo tax ngay laaj lii la wala zaal imma baytin bihi sarufat آباؤك الغر بين الحرب والعجم وعبد المطلب لاقاء زائله جماله وهو في النور لبدر التم تم التم وخال من, من بعد ما أولاه مكرمة حتت نفسك يا ومولى عن الحرم لولا سألت حما بيت به شرفت آباؤك الغر بين العرب والحجم وخال للبيت رب سوف يحفظه عظيم خومك لا أبقي سوى نعمي yàlla dogal nag loolu am jàkkaarloo ñoom ñaar wax nañ ko mu koy wax mu ne ko yow daal kaaraange néeg bi laa foogoon moo la fi tax a ñëw waaye sa alal dong la cam jëlal sa alal te ñibbi yaa ñàkk fayda jox gaa yi ñu ko jox alalam ndeysaan après Abdul Mutalib jiital ay gileem ñëw njaboot gaa ngi dar ko ne lu ñuy def mu ne bu kenn saaga bu kenn xulo bu kenn yëkkati bant bu kenn saaga bu kenn wax len ne leen teg ah mu ne bu kenn def xam nga lu ngeen def yéen ñëpp génn leen dëkk bi ku man dem ci montagne dem làqatu ci fa bàyyi ko bëgg a def waaw man nag maa ngi dem ñaani yàlla moo tax kilifa pur kilifa pur day dimbale njabootam te dafay mën a làq njabootam kooku nag baaxul borom kër ak soxnaam baaxul borom kër gi ak njaboot gi baaxul borom dëkk bi ak dëkk bi baaxul borom chef de commune ak commune bi baaxul arrondissement bi ak ka ko jiite baaxul département ak ko jiite baaxul ak ko jiite baaxul réew mi ak ña ko jiite baaxul Afrique ak ña ko ëmb ñëpp baaxul mboolem koo gis muy kilifa ak la nga kilifa lu mën di doon. bàyyi ci xel yonentu kere bu mu tëddee ci lalu deexam di sukkuraat bokk na ca lam jiitu loon lam denkaane woon ca yam dénkaanoon bokk na ca ñi yàlla dox ak kilifteef seen loxo nañ yërëm ñin yilif allahu akbar moo baax wallahi moo baax sang bi sayyidina Muhammad a baax kere bu tëddee ci lalu deexam di sukkuraat bokk na ca dénkaane ya inna salaatal mamluka la axiru ma mam saydaaj ma ci xelal zahab ba loolu amin abdul mutalib ne maa ngi ñaan yàlla wa aba yadahu ilahal bayt mubta an yabna al bayta an aadaihi wala an aadaihi ul udumi aadaihi l ba mu demee nag wa aaba dellu na yadoo ilaahal bayti mu dëkkee woo dëkkee ñaan dëkkee ñaan dëkkee tallal këmi tallal kan ilaahal bayti kii kilifa ak néeg bi kii borom moom lay ñaan mag ñi dañoo mën a jàngale te rafetum njàngalin mënoon naa wax mën naa mënoon naa wax ne ma ngi ñaan yàlla rek bañ koo daafal dara mënoon naa wax ne mu ngi ñaan yàlla te bañ ko idaafaal ci dara mënoon naa wax ne mu ngi ñaan borom bi yem ca waaye daf na mu ngi ñaan taka mi ñaan mooy yilif néeg bi ndax coow li coowal néeg bi la mu ne ilaahal bayt allahu akbar ey léeg-léeg day ni leen waaye doo doo fa jaar mag ñi suñu magi Sénégal yii mën ngaa réew yi nag loola neex nga wax leen mën ngaa néew xam na sa néew xam gi ànd ak ak xamadi ba la teex nga wax leen waaye foo jaar doo jàll ndax da fekk ponkal mu góof moo xam soo boo ñëwee mu durne la ndax kenn mu leen a jam naa danaa wax lu bari ne ku leen ñeme ma ñeme la suñu mag ñi ku leen jéem a attaqué ak noo mën a bëri xam-xam ak loo mën a mel foo jaar fekk ponkal mu toog moo xam bu ñëwee mu def yee la xoolal wax ju réyee nii rek ilahal bayti ci diggante mu ndaw boobu rek ndax bërki dem gis naa ci daara ji koo xam dafa dugg di attaqué téere mag ñi daara ji yéen xamoon ma ne ko juum nga de wallaay danga ko waroon xam ndax ñun ñi taale yëpp bi ñu la déggee nga wax liñ ci njëkk jàngatee mooy li ngay tontu xamuloo ko li nit nag ñaaree balay wax day fexe xam war a jiitu ndax bu attaqué mbir te ko gàcce rek moo ci jub ndax ñun jàng ñëpp xam nañ li ngay wax xamuloo ko te loo xamul nag doy na ayib doy na gàcce wa aaba yadool ila albayte mubtaila an yamna albayta an aadaihi l uzumi raqa sabiran xalilan summa qaala ala ubu lana zufru xaqan jaa min al lu tax ala mu ne uuboo dellu leen ñibbi leen waaw waaw leen de lana zufru lañ bëggoon yàlla dogal nañ ko am nañu nga ñaay de tuufu nañu de lañ bëggoon yàlla def na ko ah mu ne waaw xaqaan ci lu lii may wax te yàlla la jógee jaa min alxakam jaa a ah, hamsa ga way yokk attunu ndax baxru bashid la way yokk attunu moo tax dina hamsa ga ndax mu ne jaa ñëw na min alxakam tukkee ji aji xereñ aj aji di yàlla fo la jógee de ndax li ma koy tegtal mooy fa masta daara hilaala qawmin qurratuna illa lana sa yaa way lan lil mujtarami ne ko man daal maa ngi yëg sama yaram loo xam saa bu mësaan yëngu saa bu ma sano rek la ma bëgg yàlla may na ma ko ay tey yaa way li mu tara mi ki nuur ci bàkkaar toroxtaane dikkal na ko allahu akbar ñi xëy na takk seeni soldat takk seeni armée sérif ne nañ dem dajji kaaba ga ñi ngi fi ñu wax muxammis muxammis wala ñu campagne fala abari xaal moom la waxoon ca gannaaw fala deexee léegi yow waroon nañ benn gileem mahmoudu fa wala basi kunyatuhu fa fi lmuxammisi yabal xasda lil xarami alayhimu arsala rahmanu ina ataw teeran ababila tarmiim min al irami wa maxsum nuuri lama aba abrahatan wa xayyaba allahu zannan aqbaha rajami allahu akbar a manama doo ci topp nag raxa manama la yuxrijana topp ci cey waay allahu akbar mooy nag li ma yëg su ma ko masaan yëg rek li ma daan wut am naa ko abdul mutalib départ abdul mutalib bi mu toog abraha xëy na départ fi mu campé pour dugg maakatam kanam xoolal mahmoud bi mu waroon gileem nga ñu waroon gileem googu moo leen te gileem ga nag abul abbas mooy dakkantalam mahmuda tuddoon abul abbas mooy dakkantalam ci mu xamis la bañ ne du jubli néegu yàlla bi foofu bàyyi ma xam ne fi lu fi doomu aadama xajmul de suñ ko jublee néegu yàlla bi mu lànk bu ñu ci mboolem xeet yi ci des mu dem bu ñu jublee penk sowu mu dem bu ñu jublee bët gànnaar fu ñu mu dem waaye boo jubloo ci kaaba gi mu lànk ñu dóor mbéj dóor loolu la ñuy def ko mu lànk ca diggante boobu nag ba nekk coow lu métti loolu la ca la yàlla yebal te xoolal yàlla ni mi ni ni mi ni mi lii ma lay wax nii su fekkoon na ñi ñëw ci kaaba gi di ko dajji ñeen fukki nit lañ xam nga lu yàlla wala juróom-benn fukki nit xam nga lu yàlla yebal ñaar fukk ñaar fukki picc bu fekkee ne abraha ak ñi ànd ak juróom-benn fukki lañ yàlla ñaar fukki picc la yebal xam nga nu mu def picc mu ci ne da ko bootale aw xeer mu def ko ci lamiñam ak ñaari xeer ci tànkam kon kay lim ngandaay yi la tolloog doomu aadama yi waaye soldaar yi moom ñu doomu aadama yi comme la xewoon ca Badar rek ñett téeméer fukk ak ñett duma junni nit lu ko gën a garaaw moo xew ci diggante bi la wax yàlla yàgg naa wane boppam mais nit ñi ñoo gëmb nit ñi ñoo gëmm nanguwuñ ko xam nanguwu ñoo gis fa loolu nag alayhim arsala alayhim rahmaanu arsala rahmaanu ina ataw tayran yàlla yabal fa ay picc nag ñu commencé leen sànni li gën a doy waar mooy gis nga xeer bi ñor xeer bu ndaw la pépp xeer bu ndaw la ñu yor gis nga suñ ko baxee bu ko picc mi yàbbee bu ne xaax mu dal ci doomu aadama day say fuq sa bopp bi bu fuqee ci biir bi sa mbaax gi génn dal ci biir ñey wa xotti ko xotti ñey wa xaraat suuf si dellu allahu akbar kenn nag ba àdduna sosal kenn musul am arme bu ñu toll arme bu ñu toll ba xam piccee koy téye ci sàllam ci begam mu ndawee noonu nga xam doomu aadama mën na mën na ci téye téeméeri xeer ci loxoom wala fukki xeer ak nangam ci loxoom yàlla yebal am picc mu téye ko su picc ma xaxtandi ko su bàyyee benn mu ñëw bu dalay sa digg bopp bi sa digg bopp bi lay dal du mooy day xar bopp bi xotti sa boli gi xotti sa mbàq gi génnewaat ci suuf xar li nga war dugg ci xar suuf si jàll allahu akbar yàlla am kàttan nal quwati lillahi kàttan yàlla dëgg ko am noonu lañ nekk noonu lañ nekk noonu lañ nekk picc mën nag ndeke tooke li mu leen sànni dafa ànd ak tooke yàlla li mu leen di sànni muy xeer yooyu la picc di ko sànni dafa ànd ak tooke joo xam ne ci ñoom lay daanu ku mu dal ci yow daf lay bàyyi feebar ba xam da nga am problème yàlla dogal nag mu leen rey di leen rey par benn di leen rey ba ñu bari dee ca abraha nag yàlla da ko musaloon deewut ci waaye dafa dund dafa noy dafa jëkk tooke ji nga xam moo àndoon ak gaañooñu xam nga nu mu deexee sërif mooy day dox ba mu yàgg rek yëngu ñaw yi dox mu yàgg rek bëñ yi mu doxaat ba mu yàgg nopp bi rot ba mu yàgg bëdee tuur yàgg loxo bi dagg mu dox ba mu yàgg ba dagg kooku foo jëm nga jëm du baax koo xam da ngay dox dox doo ngay def ñawee dox bokk bu yëngoo rek sa sa nopp dagg wala bu ñawee dox ba mu yàgg sa tànk dagg ah bëggalam yàlla ñëw na noonu la def ba ñooñu faagagal leen nag ba loolu amee nag yàlla dogal nag arab yi ñu jox leen cër bu mag ci ngay doog a déggee baytu bële sañ bi di wax fal urbu xayru unasin summa xayruhum xuraysuhum wa huwa fihim xayru xayrihim wallahi foofu nga koy déggee dëgg ci lañ yàlla may teraanga pure ci lañ ko yàlla dogalee yàlla dogal abraha jeex ba abraha jeexee nag li ci topp mooy abdul mutalib moo ñibbi situation xew abdul mutalib moo ñibbi situation xew incha allah ba moo toppee dar si bi di ñëw naa leen tali abdul mutalib fu mu jaaree ba lii ci xew-xew ci pare nañ ci abraha ñu a juri kan mooy soxna ak fu mu jëlee soxna ak nu mu soxna sax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw yëpp incha allah daañu ci pare ak Abdul Mutalib dan la wax ak ak ndeexam ak yaa aju yëpp incha allah daañu ko jàngale in uridu illa islaaha ma saratu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu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 su ma yëpp bitig nekk fii ci Parcelles Assainies marché Dior ñoo mën ci jaay xeetu tissu dàll robe sac pochette linge de corps dara wala rideau su ma yëpp bitig seen xeetu tissu ñoom rekk ñoo ko am xoolal ma yii xeetu pirque VIP brodé autriche voile silis pirque jesner ma ñoom gold ay tissu góor yu doy waar soit fil dentelle til perlas brodé cocaïne brodé cotonnade yu léger yu neex ci yaram ay borode unisex ci dessin yu amul fenn abaya rob ak kolkasta xoolal ma yii xeetu wax ci getar get voudine ay dara ak ay rideau yu rafet lool linge de corps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 bu saf alen bu neex